bu ñu yegsee ci phase bi ñit ñi nekk ci préparer seeni campagne électorale ñi sérieux parce que xam nga c'est l'élection des sérieux et des hommes sérieux et des femmes sérieuses ñi sérieux wul nag nekkuñu si du sérieux ñi nekk ci ay calcul ak ay schéma gis nga l'histoire des schémas et des calculs politiques moo jeex depuis lors y a 4 millions de Sénégalais qui sont aphones une majorité silencieuse ni le pouvoir ni l'opposition après les législatives kenn amu fi légitimité légitimité bi mu ngi ci la le pouvoir du citoyen et que ces citoyens maintenant yónni nañu ay nit assemblée gis nañ la situation bi élection bi di jub si ñi def di sérieux sur le travail des parrainages gis nañu résultat yi mu leen jox ci digënté bi am repositionnement ak recomposition politique am ñu bees tak ñu dugg ci politique bi ñoo xam ne mosuñu nekk dans la classe politique mais tay dañuy faté am na ñoo xam ni man yag na leen gis ci terrain professeur Daouda Ndiaye da doon def ay action citoyenne ci terrain bi Anta Babacar Ngom bi mu génnee ñëpp yuuxu nañ mais da doon def ay action te mu ngi continuer di def terrain Pape Djibril Fall depuis législatif yi musul arrêter mu ngi mettre en place ses équipes accès moins moyens humains di sur le terrain bi qu'il ci bi Idrissa Seck toogee noppi depuis lors mu ngi stratégie mu ci terrain bi mais Boubacar Camara très sérieux la jël élection yi bu ba phase bii mu am ay association des recalés ay xawma spoliés yu kenn xamul nañ leen ci parrainage bokkatuñu ci jeu ñu am ci kër Macky ñu d'accordul ci choix Amadou bi wax naa leen ku d'accordul ci Amadou instant cuisine interne la na nañuy assumer seen responsabilité